Abonnez-vous la cloche de notification. gannaaw bi ñu la nuyoo di la siyaar bu baax a baax a baax ñu ngi bàyyi nga nuyoo mbokk téléspectateur yi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu mboolem ku nekk ci réew mi te bëgg di dundal làmb bëgg a làmb lay ñaan yàlla defal la jàmmal defal na ko ñëpp te lii nu indi fii tey programme Gaston Mbengue bi diggante am na seen laaj ñaan yàlla fekkloo na ko. te mu fekk nu ànd ak wérti tal ko te yàlla mi nga mooy dogal lu ko soob mu jàppale ñu ba lépp luñ si bëgg nam ma ko si nun waa écri waalo yàlla defal na ko te daan doo nga doon bëgg daan luñ si nam loolu la ñaan si yàlla yàlla defal na ko coow amoon tuuti ñu doon wax ni entre yéen ak Gaston jubóowoo leen euh, lan moo lan moo lan yombalal euh, jubóo bi non lamba lamba moo baaxoo coow làmb moom tout le temps moom làmb bu bu bu am coow rek làmb ju rëy lay doon hmm. léegi ne waxtaan nañu bu ñu waxtaanee jubóowuñu woon delluwaat nañu kii wàcc na kii yéeg na ah alhamdulilah raw jiwoo am na jiwoo nañu koy sant yàlla loolu la léegi moom léegi moom lépp lépp lépp jeex na rek waxtaan nañu ba jubóo ndax yàgg nañu Gaston Gaston yàgg si làmb ji ñun ñi mën daan tëgg suñu jamono tëgg na sama presque huit xam neuf combats yoo xam ne moom moom ko doon tëgg kon nag euh, war nañoo mën juboo wax dëgg yàlla. ñu dégg ni amoon na tuuti différence ci wàllum prix ndax mën nañoo wax ne Gaston Mbengue dafa yokk tuuti loxoom wala da ngeen yéen tamit da ngeen accepté prix bi. waaw Gaston dafa yéeg nu wàcc da ko mën a kii day yéeg kii wàcc. Mhm. Gaston dafa yéeg nu wàcc ñu day si diggante bi. loolu rek la bu ko defee da nga léegi jàmm am. dafa yokk loxoom tuuti ngeen d'accord. nu wàcc waaw. ok noonu la parce que dañuy dañuy defati làmb ji comme dëkk bi boobu léegi làmb amul problème bi bari na feebar bi indi ay gàllankoor dañuy fas yéene rek defar làmb noonu lu ñu si kii lu ñu yitteel mooy làmb yi dal fu mu nekkoon. nun moo tax mujj oublié sa bañ loxo booy bi nekk nañu ak nu mu mën dem daal ñu fexe ñu déggoo ñoom ñu bëree ndax làmb ji dekkiwaat. d'accord ndax làmb dekkiwaat mais papa ñenn ñi foog ne làmb ji amoon na fi amaat fi gars doon xaar aussi affiche Lac de Guiers Gris Bordeaux ndax doon nañ ko dox. waaw doon nañ ko dox. problème dañ ko doon waxoon nañ xam nga Lac de Guiers di ñuy wax ku ñuy wax ko mbaam ñaari promoteur ñëw nañu wax nañ dox nañ si ba mais nag jotaw ñu ngi doon waxtaan mais waxtaan bi jeexul woon yàlla dafa xam ne comme ki bëri moom day liggéey rek liggéey bu njëkk a sotti mu ñëw attaqué liggéey boobu comme bi moo njëkk a sotti ñu dem daal di attaqué bi rek la Eumeu Sène nekk koo xamante ne bëri woon ngeen nul waat mu daan leen ngeen fas yéene koo jël mu jógee nag moom it ci defet est-ce que wóor na moment bi ngeen ko jëlee. ah xam nga bëri woon nii nu bëri nu mu daanu. waaw bu nu wa bu nu bëri waatee léegi noo ko war daan la yaakaar nga ni Lac de euh, war naa mën a daan moment bi Eumeu Sène ak mu bëgg a dellu si Lac de Guiers kan la war a mën daan Lac de Guiers bu bu daan Eumeu Sène li muy mu bëri woon doy ko parce que làmb la ay xal la ñoom ay ndaw lañu ñoo ñoo toll si digg làmb ji tey ñeent champion yi ñuy wax si Dakar ñoom si la ñu bokk kon kay wax dëgg yàlla bëri nag ñaara am daan ak am te daan yàlla koy joxe daanu yàlla koy teg nit yàlla koy nattoo nit kon li si ëpp solo moom moo di moom dañu ñaan si yàlla yàlla yóbbu na ñu commencé bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulilahi rabil alamin nag yàlla ñaan si yàlla yàlla may ñu ndam loolu luñu solo yàlla nag moo xam lu muy def Eumeu Sène nekk mbër moo xamante ne nee nañu moo dàq bëre Lac de Guiers wala observateur yu bëri dañuy wax ne moo ko gën a technique Lac de ñu bëri ne buy bëre day taxaw day calculer lu bari est-ce que kuy calculer lu bari gis nañ si ñaari combat yi d'ailleurs est-ce que war na mën a euh, daan ko xajam ni Eumeu Sène wàññal ma ñaata Eumeu Sène Eumeu Sène ñaata yoon la daanu ak Lac de Guiers ñaata yoon la daanu waa ah, kon nag nan la ko dàq bëre xam nga loolu moom yoo xam ne dafa am parce que yow bu dee kii benn yoon la daanu daanu bi dafa taq suuf am coow ki daanu ay yoon yoon yoon nga ne ki daanu ki moo dàq bëri ki daan gi <laughs> mais kon kay war a yàlla doy na waar loolu mbir mi doy na waar l'essentiel seen man sama doom la sama boy la ñoom ñëpp samay doom la ñu mais nag sama écurie moom mooy Lac de Guiers numéro deux moom laa yore dama laa ñaan yàlla mu daan mais nag ñu ñaan ñëpp ay champion lañu parce que Lac de Guiers su mul woon bëri du ak ci fi mu ak ci tey ci mbër yi ngay wàññe seen defet moom moo si gën néew ñenn ñi di xaaree lu bëri Lac de Guiers ci combat ñëw offensif xeex bëre comme peut-être niñ ko xamee woon bi muy bëre ak ñoom Babacar Diallo mais ñu gis bi mu ñëwee ci VIP yi Lac de bi dafa ëpp lool est-ce que mën nañoo xaar ci combat bi ñu gisaat Lac de Guiers bi nga xamante ne moom lañ doon woowee le puncheur. Lac de Guiers bés tàq ngeen gisaat bu soobee yàlla. si hmm. kattanu yàlla. Lac de bu njëkk ba. Hmm. bu ko raw si kattanu yàlla dana ñëw mais nag teewal làmb toujours. calcul la. d'accord mooy calcul moom euh, mbër muy calculer mooy dàq mooy ëpp la muy daan mbër muy potax potaxee. d'accord ba nga potax ba nga daan tey ëllëg ñu daan la jëlam ñaaw. Hmm. te kat la koy def mooy sa yàkkamteeg sa param mais nag l'essentiel mooy kuy bëri ku ne hmm. dangay xalaat ni ngay bëri di séen da nga fexe bi daan tax bu ñu jógee làmb de kenn du wax ku door kenn du wax ku te ko daan la ñuy wax kon nag daal nun ak lu mu mën dem daal yàlla nun féete di daan rek daan boo daal ñaan ci yàlla yàlla di ko may ndam nu ñu